vidéo yi xam ni dañ may su ma duggee live dañ may signaler donc Facebook day restreindre Facebook day restreindre sama live ah bu fekkee ne nag sama gars yi bëgg ngeen ñu waxtaanee loo xam ne am na solo parce que réew yu mag yi tey moo leen sonal réew yu mag yi tey sont à genoux yu mag yi tey ñu ngi wut dañoo ñàkk xamuñu lu ñuy def. dëkk bi ma dëkk tey Californie dañ ñoo confiné maanaam euh, loo xam ne rek c'est pas essentiel ce n'est pas autorisé nga génn dem di ko dox lépp looy génn booy génn day nekk loo xam ne euh, maanaam dafa nekk lu loo xam ne mënut a ñàkk est-ce que rek si lañ lay autorisé nga génn ci ci euh, génn sa kër donc li may wax mooy Miss la Viviane Safi kontaan naa gis la merci beaucoup partagé leen vidéo bi xam ngeen ni dañ ma restreindre man sama doole page xajul ci vidéo ci live mais c'est euh, des gens de l'opposition travaillent à ce que ma voix ne passe pas may rappelé ni sama baat du Facebook la yem Facebook def leen su ma dugalee kenn bañ koo gis terewul euh, fa mu war a yegg daf fay Et c'est extraordinaire que des gens de l'opposition qui disent venir changer le Sénégal ñoo liggéey loolu partagé leen vidéo bi restreindre leen samay page saboté leen samay page signalé leen def leen lu leen neex waxtu bu amee maanaa dinaa ñëw dinaa ñëw te wax ak sénégalais yi ci li am solo donc tey soxna Ndella Madior Diouf dama ko bëggoon a dugal ci caméra bi mag moom ñu nekk ci caméra bi parce que ça fait toujours plaisir d'être avec euh, une femme de valeur, une femme leader comme elle. Malheureusement. Euh, restriction yi ñu def sama compte sabotage yi ñu def sama compte day tax ba Facebook yenn option yi dootuma ko jox. mais li ma mën a wax en premier may leen ma arrêté lii parce que li ma mën a wax en premier mooy restez chez vous. La Chine. Chine la affaire bi commencé te ñoom tey ils ont pu juguler le mal ils ont pu régler ce problème comment parce que dañoo am discipline dañoo toog seen kër dañoo nangu képp lépp li nga xam ni moo accompagner toog euh, confinement bi boo leen ko nangoo rek di ngeen dimbale autorité sénégalaise yi may commencer ak vidéo bii nga xam ne tey laa ko gis xaar woon leen pour ñi nga xam ne dañoo am ay doute ni dañoo war a toog seen kër xool leen boo leen toogul seen kër foo leen mu ngi nii xaaral leen ko donc tey laa ko gis ci page Al Diallo. Une vidéo pour les gens que je connais et qui râlent parce qu'ils doivent rester chez eux. Je vous montrer un peu ce à quoi vous pouvez échapper. Voilà ce que c'est le coronavirus. On peut se retrouver comme ça dans un lit intubé avec un tube dans la bouche. Et puis ce qui vous fait respirer, c'est plus vos poumons, c'est cette machine. Voilà, le monsieur là qui est derrière moi, on sait pas si on pourra le sauver, mais il va rester comme ça pendant plusieurs semaines. Alors restez chez vous. alors gis ngeen donc ci vidéo bi